li ma jàpp euh, ni may ni may jéem a tontoo ci li ma laaj mooy dañu am un régime politique. Mhm. bu président Macky Sall jiite dans une large coalition Benno Bokk Yaakaar bi gën a yàgg ci histoire Sénégal en termes de longévité mais bu ëpp ay victoire électorale am ay résultats ci réew mi. yu benn doomu aadama naatablewul madam réew mi léegi dañuy tere ku fi wax bilan soo ne bilan ñu ne la waxu bilan jotul et puis le bilan le moment viendra mais fi ma bëgg a terminer mooy mhm. nga jël ko ci ay route ak ay infrastructure ba Sénégal ba Sénégal ba léegi kenn musee su ko gis ci ay résultats depuis les indépendances africaines musuñu gis ci pays africain subsaharien les grands bonds yi nga xam ne réaliser nañ ko en matière d'infrastructure symbole yi ci gën a édifiant muy les trois ponts qui traversent le Sénégal le pont de Rosso le pont de Foundiougne le pont de Farafenni muy garantir au moins ñett continuité territoriale facilité dem beeg dikk bi facilité développement koom-koom nga jël ko noonu ci croissance économique mu yóbbu la croissance économique du pays à un niveau et une constance ci benn tendance am Sénégal ba Sénégal des Sénégal ba tey kenn naatable wu ko kenn weddiwu ko nga jël en termes de kilomètres de piste rurale c'est du simple au double de l'indépendance à nos jours. mais yéen waxoo leen loolu loolu seen débat loolu seen bu mu yem foofu de. nga jël bilan bi loolu foofu de. nga jël nga jël nombre de forage yi ñu def. <laughs> non bilan matériel bi lii mën dem ba 13 heures du monsieur Diouf xam nga la lan la kon lii mooy lii mooy dëggal li ma wax sànq bi may tàmbalee. bilan la ñuy wax. xam xam nga lan laa bëgg a xam léegi dama bëgg a daaneel rek dama bëgg a daaneel rek. xam nga lan laa bëgg a xam parce que lii yëpp dama bëggoon tontu li may laaj rek maa ngi ñëw de. un bilan comme celui-là incontesté et incontestable te nangu ngeen ko. Ah, askanu Sénégal askanu Sénégal yi. loolu loolu kenn mënu ko contesté. ci priorité yi. léegi ci duut baaraam. su loolu amee. Mhm. ñi ñu jàkkaar lool ci opposition bi amuñu proposition ah, amul aucune proposition ah programme bu leer ci li ma lay wax ni infrastructure formation enseignement supérieur politique d'infrastructure sanitaire désenclavement du pays et cetera amul vision. en face li ngeen am en face. xam nga lan liroo docteur Abdourahmane Diouf. xam nga li ñu am en face lan la. Hmm? li ñuy wooyee bëgguma ko tudd sax. gatsa gatsa foofu ngay ak liberté ay individuels yoo xam ne teguñ ko ci dara teg tuuma ci deru nit ñi mais doo dégg mukk ñu ne la ñu ne la dama la ba noonu ñëpp laa wax opposition bi yëpp opposition bi yëpp lay wax doo dégg mukk ñu ne la ci politique d'infrastructure lii lañ def su doon ñun lii la ñuy def ci politique d'autonomisation de l'action l'activité de pêche damay dagg neer bi à la place de terre bi damay dekkilaat à la place de terre bi damay dekkilaat pour tontu sa laaj lii moo tax gannaaw nit ñi bu ñoo wax ci bilam lii moo tax lii moo tax malheureusement euh, le débat ci réew mi tegootul ci développement programmatique mais ci ay débat personnel la